mbokk yi di am mbégte rek bu baax a baax a baax saa su ne jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 nu ñu koy defee ak yéen rek saa su ne di dalal ay ndaadaan waaye tey nag ñu toog ak kilifa goo xamante ni sénégalais xam nañu ko ñu leen ko présenté ndax it taxawaay bu am solo bi nga xamante ne moom la yàgg taxawee ci réew mi waaye aussi yàgg a génnee li nga xamante ni moo di drapeau Sénégal suñu ko waxee nag c'est un nom de Fallou Seck Torino suñu kilifa di nit koo xamante ni yokk na aaru Sénégal di nit koo xamante ne yóbbu na aaru Sénégal foo xamante ne ñu bëri mënuñu ko fa woon yóbbu tey nag ma seet ko dalal ko fas yéene waxtaan ak moom ci carrière bi fas yéene waxtaan ak moom actualité yi nga xamante ne jamono ji sénégalais ñu ngi koy dund ci réew mi lépp rek doon it mbéytin ci askan wi papa am naa mbégte tey bu baax a baax a baax toog ak sama doyen toog ak sama patron ci lépp li nga xamante ne rek dañ koy wax ci milieu bi la rawatina milieu presse bi nga xamante ni yaa ngi ciy liggéey lu am solo ah li ci gën a am solo sax après dinaa si ñëw ak yow moom nuyoo la bàyyi la nga ndékk mbokki internet asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki diaspora bi asalaamaaleykum mbokki àdduna mhm. asalaamaaleykum mbokki Sénégal mhm. di leen ziar mhm. di leen balwaq di leen balaq di ñaan jàmm ci réew mi yàlla na ko yàlla yàlla na fi yàlla saxal jàmm amiin waay te jàmm rek ci la lépp xaj mhm. di ñaan fa nekk di daan doole di ko indi ci suñu réew mi tamit yàlla may nu jàmm ban am kàttan nga am ba yàlla may nu am am man-man ay milliards xëpp suñ kaw ban mën del ci suñu njaboot mhm. di la ziar baax sama rak sama xarit sama doom sax laay wax ah Sénégal Buzz moom waaw ah, dama leen di ñaanal jàmm mhm. di leen ñaanal salaam yaakaar nit Fallou Seck. Mhm. foo ne man la maa ngi sama kër kaas sëñ Fallou. Mhm. nga ne ma ñu ngi ñëw. waaw ndax daa am lu la war a. waxtaanee waxtaanee. Mhm. loolu sama fierté la. dëgg la dama lay ñaanal jàmm. di la ñaanal salaam. di ñaanal seen site bi. amiin waay jëm ca kaw. ca kanam ci lu baax. di ñaan jàmm Sénégal. di ñaan jàmm Europe di ñaan jàmm ci àdduna. ndax jàmm ci la lépp xaj. waaw. bu xoolee àndi tàppee nekk benn rek. bu mhm. ñu jot na yàlla may jàmm. amiin yal na may salaam. amiin na ñaanal jàmm yooyu. la ñaanal salaam ca kaw ca kanam ci lu baax. ca kaw ca kanam ci lu baax mbokk yi kàddu yooyu am solo ba tey rek ci jotaay bi nga xamante ne toog nañ ko ak moom tey nag sénégalais yu bëri bu ñu déggee Fallou Seck Torino xel yëpp day dem fa nga xamante ne moo di Torino ca Italia Fallou mhm. euh, sama première question ak yow waxtaan bi nga doon artiste nekkoon fii Sénégal joué ak ndaanaan bu ne ànd ak ndaanaan bu ne mhm. nga xëy dem Italie lu ko waraloo. waa xam nga tey choix bi euh, mooy tey jii li nekk Sénégal rek par exemple tey jii xam nga yàlla tey bu bindee rek yéen da ngay dem ci réew ma. da mhm. ngay dem ci ma. dëgg la waaw boobu ba tax na booba ni 1980 dama koy egg commencé waat. Mhm. boobu dana amoon benn euh, troupe bu naan à cinq cinq rythme fii ci dëkk bi. mun mhm. amoon tournée. ma ànd ceeg ñoom ma ànd ak Youssou Ndour ñu ànd dem ci dëkk ba. ba ma demee toog. nga xam ne du ma toogee ndax may taawum kër gi. Mhm. su ma toogee kër gi. Mhm. su ma toogee. Mhm. danaa mën a dimbali ñu bari. ma xalaat ndaxte boobu maay sama taaw yaay ndax sama yaay boobu lam daj ca ma dem. bari na lool di ko ñaanal jàmm. di ko ñaanal salaam di ko ñaanal fan wu gudd ak wér. di sama yaay ji yàlla na ko yàgg te wér. amiin amiin waaw ndax booba sonn na damay taaw. mu jël lam ma nag lam mu liyeer fexe ba ma ànd ak groupe ba dem. ca it. France. Mhm. bu ñu tëggee France ba pare comme yow yaa defaloon sa bopp. bi mhm. billet baag yooyu. Mhm. ndax boobu amul visa. liste la boo defee ci bokkee ci liste bi. mën a fecc loolu boo bëggee da nga dem ci réew mi loolu ma yóbboon ca culturel bi ma nekk ca réew moom. ma nekk jaar France. ba mu fa jugee wàcc Genoa ca Italie. ca ma nekkee 1990 ca dëkk ba ba ma fa egsee. ñam fa nekkoon ñooñu ñoonu mag ñii am trent trente cinq ñii am quarante ans ñii ñëpp ñoonu mag man maa fa am seize ans ak dix sept ans. Mhm. bi ma fa demee pour ñu ànd ak ñun ak tubaab yi pour ñu nekk benn il faut que nga am benn action bi nga xam ne da nga wala pour tubaab bi xam la. Mhm. te tubaab bi ni la mën a xamee mooy milieu. waaw ndax bu milieu amee tubaab mën a génne fee génne fee ma am fa ay lii loolu sax wax naa ko waxati ko. Mhm. ba yàlla def tey ji tubaab yi ñëw ci ñun. ban bokk ndey ak baay. Mhm. ba tey jii boo demee jonowaa mhm. tubaab ya bëri nan mhm. waaye ñun ñëpp ñu benn la sud américain ya bëri nan waaye ñun ñëpp benn la ña nga fa nekk ci jàmm nga bokk suñu njëkk a génnee culture Sénégal muy wàllum fecc mi euh, di ko def ci bopp tubaab yi ba léegi bu tubaab ne der sax nga jàpp ne sénégalais tëb eh, eh, ki ma jàngaloon fecc man ki ma jàngal tubaab ba ma jàngal mu tudd Istifania tey muy meilleure ballerine de l'Europe moo dàq fecc ci Europe 1996 dama man maay njëkk a bu ubbi ku scuole de danse mooy nu ngeen ko tuddee scuole de danse mooy fu ñuy jàngalee fecc école de dance école de danse à 1996 mais booba ba ma koy ubbi bëggoon rek pour nit ñi gën a nekk communale mais booba maa nga ca commerce ba mm-hmm. ndax man commerce laa xam ndax man bu fa nekkee pour nga doon commerce da ngay dem jàngi rek ñu mag ñi ñooy wax nag ñëpp a ngi fi di ma xool waa Europe gi ñi ma nekkaloon ñëpp nga fa ndax papa Cheikh ñan mi ngi fi. Mhm. Cheikh Diom mi ngi fi. Baye Dame mi ngi fi. Xaadim mhm. Caam tey ma nekkaloon mi ngi fi ñoom xam nañ ci li ma nekkoon te amul benn la xam ne man dama dul du ma wax kenn yàllaa ngi tëdd wala may waxal kenn. Mhm. dul dëgg. ma nekk fa jàngal fecc bi ñu dëkkee ci kër ga tubaab yi mujj ëpp nu doole bëri lool ba ñuy fanaan ci kër ga te man baa ngi woon ci commerce bi di jaay aar. Cheikh Fall Guèye mi ngi fi yàlla na ko fi yàlla bàyyi sama mag la. amiin ñu bokkoon kër. ak mm-hmm. rakam Cheikh Diop ak mm-hmm. bàcc. Mm-hmm. léegi bi nekkee loolu mu ne ma mënoo jàppandoo ñaar xam nga yaa ngi jàngale fecc nii mais tamit nit ñëpp ngi ñëw di jàngale si fecc boobu am naa lu mat soixante et quelque maa njëkk a jàngale ci Louga yaa fecc. ci Italie. dafa ëpp nag di waaw xam nga li ma la. waaw ku njëkk a man ci Liguria tey boo demee ña dàq fecc ak tëgg moom ma nga fa mel ne moo raw Sénégal. Jonawa. ba tey jii benn artiste di ñu demoo moo Jonawaa ñu woowee Fallou Jonawaa hmm. kon nag def naa fa culture bu mag. macha kon nag fecc mii may wax. Hmm. du li nga xam ne dama koo def métier. Hmm. dama am beneen métier. mais culturel bu nekk ci man. te ma mënoon ko. mais man 1990 laa dugg Italie. Mm-hmm. 1990 laa dugg Italie. Mhm. bi ma duggee 1990 booba ak léegi jaay ci njaay mi laa nekk. kon nag mhm. kooku nekkul ci pecc ma. waaw ba ma demee Torino tey jii bu naan aar ba. Mhm. man maa fa doon tàmbul am majeur. di fa jàngale fecc di fa jàngale tëgg. maa ngi fa ñëw 1998 fa indi woon fàllu sekk lañ koy woowee. muy sunu xalifa bu nekkoon ca dëkk ba amoon spectacle ca Torino Exposizione loolu lu yàgg la. 1998. Mm-hmm. Mm-hmm. ma ñëw fa bi ma fa ñëwee def fa spectacle bu jégg bu doy waar. Mm-hmm. ba toog fa ba tey ji bu dama daan defal tey ji ñu nekk foofu nga dégg leen tey jii ñu nekk ci aar bi tey maa leen dalal baax. te képp ku nekk ca Piemonte gee rek. ci nekk ci aar da nga maa ñëw fekk. ma nekk ci. ma nekk ci affaire boobu. Mhm. kon nag yàlla def na. Mhm. kon damay ñaan jàmm. Mhm. di ñaan salaam. ba tax na. ña fa nekk ci itali ña ngi may bégewoo. waaw di ma sargoo. di ma safoo. kon nag damay ñaan jàmm rek ci réew ma. di ñaan jàmm ci Sénégal. wax ne mënuma ko def métier. ndax pecc du sama métier. tey jii bu ma demee fekk sam kenn ci àdduna wala kuy pecc rek damay bàyyi place bi nga xam ne. fa may liggéeyee. Mhm. kenn mënu koo bàyyi. mais ci nag fecc boobu du sa métier waaye nag euh, gis nañ ki nga xamante ni moo dàq way Sénégal taxaw sa kanam ne la yaa dàq fecc Sénégal muy Youssou Madjiguène Ndour loolu nag di nga ko nangu. ak Mori Thioune. <laughs> ak Mori Thioune sama mag ji. Mhm. ndax dafa am benn jour sax ñu toog. ci benn table euh, euh, maase. Mhm. ma toog ay kilifa ak ak samay doom ak samay rakk ñuy wax ci wax ju mel noonu ndax bu waxee loolu xëy na la ma ko defal la cay tale ndax gis na ko. yëkkati alal ju bari may ma. yuusu dama koy ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam. Mhm. mais table ban doon waxee samay doom dañ faa nekk ak samay rak. Mhm. dañ naan euh, olof Ndiaye dafa lu ngeen wax sax ne euh, xaw ma lan ngeen di wax naan. naka. ja day jàkk tuumaal xaw ma nu koy xam dama yàgg ci réew ma faj. Euh, teggi tuuma sa der la waaw setal sa der la waaw. dëgg la ma nettali fa lu mel nii xam nga yow da koo seetaan. waaw am ñeneen ñu ko seetaan mais am na ki am na ki nga xam ne moom mën na koo bañ a seetaan ndax fekk ko fi. Mhm. fekk na ko fi mais mën na ko bañ a seetaan. Mhm. ba daal di gees ni waa loolu est-ce que am na. xam nga loolu yaa ngi ko yow xam nga ko. Mhm. ñeneen xam nan ko. waa Italie ga ma nekkalit xam nan ko. mu yëkkati defal ma teraanga ca dëgg Milan. waaw. waaw man loolu daf may jaaxal. yaa ngi euh, dégg Papa Fall ma ne gees. Uh-huh. nit ka toog muy sama doom di sama xarit du ma tudd tur ne ma ah waa Fallou Seck loolu kon yow ma ne ko Youssou Ndour moo ne boo ñëwee senegal ma yóbbul la TFM ba mu koy wax mbay Gueye Faye mi ngi toog Elas Faye mi ngi toog ñooñu du ma leen te man du ma ne kenn yàllaa ngi te nekku fi. Uh-huh. Jibi mbay mi ngi toog mu yéegal ma ca kaw wax ma li mu may wax. Uh-huh. ma wàcc ñu ne ma lu la wax mu ne ma. ma ne ko ah Youssou Ndour dafa ne bu ñëwee Sénégal ma ñëw fexe ba gis ko ñu liggéey. Mhm. xam nga kon Youssou Ndour dama ko wax. dëgg la te bi ma ko waxee ñoom laa ko nettali ña ma àndaloon maa ngi àndaloon nag samay xarit yu jógee Torino. Mhm. papa laay ca la bokkoon. Mhm. sama beneen sama yeneen rakki rakki rakki rakk ña nga ca woon. tey jii buñ ci bokkee dégg wax ja ma wax leen ndax ñoo bokkoon oto. ñëpp gis nañ ko. man dama lay topp ndax waxu waxewu ko. Uh-huh. waxu ko ci roq da ko wax ci public. publiquement ñëpp dégg ko ay 4000 personnes yu taxaw nga wax uh-huh. mais man ki ne la def na 32 ans in Italia. Uh-huh. mësta liggéeyal tubaab. mi ngi ci bi mi ngi ci njaayam à 1990 ñu ngi ci 2024 mosuma liggéeyal tubaab man maay liggéeyal sama bopp di fay ci gouvernement ba. muy sama licence bii ma lekk ma yore. kon kër pour nga fay ma fii Sénégal day xaw a jafe tey ku fa mën a ñëw su ma demee sa spectacle ba sax bu ma egg egsee turinoo ñu xas ma. Mhm. lu tax mu bàyyi bagaasam ya dem toppi kële mais ña may topp bu dee waali sama doom la foofu dinaa fa ñëw waaye li tax ma ñëw rek ci yow ak euh, ki nga xamante ni moo di Youssou jigéen Ndour parce que mm. dafa nekk koo xamante ne euh, bu dee wàllum aar bu mm. dee wàllum li nga xamante ne moo di musique lu sekk. Mm. ne fàllu sa fecc daf maa yéem. defal la lu mu mësta defal nit ci kaw seen jël micro jox la. Hmm. taxaw publiquement ni teral naa la. Hmm. ci lii ak lii seen diggante complicité boobu lan la. dama ne la ba mu amee problème ca xam nga tey jii man maa ngi Youssou Ndour tey mu dun toogunu nii. Hmm. te man damaa amul temps ba. yow gis nga li ma nekk. gis nga ci li nga ma bett. ba mu koy wax. man it ba may tontu. xëy na peut-être bu ma ñëwee sax gise bi dana am mais yàlla dogalu ko. dégg nga fi ma waxee. lu baax mais dama bàyyi njaboot ca Italie. Hmm. bàyyi njaboot fii bàyyi sama liggéey tey bu ma ñëwee fii. Hmm. sax du arrange du arrange sénégalais yi koy gis dañ naan lu tax muy dem Sénégal. ya it hmm. ya ma ca Italie. waaw ndax fa may liggéeyee yàlla dama fa may sama xéewal. macha allah kon nag man du ma legaaral kuula na du ma du ma martaan kenn yàlla defal ma ko kàddu li ma yàlla wërsëgale ci lay nekk. mais nag bu Youssou Ndour ñëwee ci dëkk ba. ah mu mën a liggéey ak moom am naa droit yëkkati sama micro waxtaanal ko defal ko la mu bëgg. ndax mhm. cultural ndax drapeau la yore. Mhm. li ma la waxoon Dakar na door paa bi mu bëgg yaa ko mën a liggéey. Mhm. dinaa ko boole ci biir vidéo yi sénégalais dégg li nga xamante ne moo ko waxal boppam. parce que Sénégal dañoo gaaw a teggi ay wax jàpp ne la ngay wax moom say waxu bopp la. ba loolu sax dama la ciy dog. Euh, yàlla bu la yàlla dog. ca jataay boobu lii mu wax ci image ngeen seetaan ko àdduna. ka ko ña ko doon laajte xamuñu mënuñu ko bañ a gis. Mhm. ku nekk mënoo gis lépp. Mhm. mu ne gees taseeg sama sama sama xarit sama collègue nga xam ne bu ñëwee Italie bu ñëwee France. Mhm. fu mu nekk fa laay nekk mu Youssou Dieng. muy buur géwël. waaw nekk ci dëkk bi. mais dafa am mag ñi nga xam ne yàq kenn warta yàq te loolu yàq baaxul. ndax yow yaa ngi nii seetaan ko image bi mhm. keneen seetaan na image bi mhm. yow ñu ne la gees ne la Youssou Dieng ndax loolu dëgg la nga ne déedéet loolu dëgg da ngay sama nawle da ngay bur géwal li la Youssou wax la weddi waaw ne ma waxul ko te yow nga seetaan ko mhm. àdduna seetaan ko jospra bi ma yóbban mu xam ko kon nag man xulli ak wolokaana mu ran waa dëkk ba ma dëkkal xam na ne man dëgg rek a may doon lan nga xamante ne wax nga ko lan nga jàpp moo tax tey kooku di Youssou Dieng euh, nangul dëggal kàddu yi nga xamante ne Youssou wax na la ko ci ni nga ne ab artiste moo na laaj ko ndax loolu dëgg la ma ne loolu amul. mais xam nga tey am nañ mag ñi nga xam ne sax waroon na leen a bàyyi ak ay yàq baaxul yàq baaxul te loolu day yàq. Mm-hmm. kooku war nga ne ko yow boo fa jugee ma wax ci yow lu bon. kin seedeel nga ne déedéet. yow bu ñu fa jógee kon doo wax ci lu baax kon est-ce ka nga toogal est-ce que war naa mën a gis lu baax ci nit ñi yow lu bon rek lay gis te loolu baaxul day féewale. Hmm. man du def loolu. 90 laa nekk Italie koo wax ñu ne ku dëggu nangoo liggéey man ci loolu lay dox mais du ma wax lu sama yoon newul même boo ma seddalee lu ma xamul dama naan xaw ma te muy sama nawle te bu dikkee ci dëkk ba. du ma ko jaay dama yëkkati sama alal may ko. Mhm. yékkati sama alal jox ko. heure bu bëggee fay heure bu bëggul ma xam ne burger ñoo bokk jus bras bi. Mhm. te man ma nga xam ne tey jii artiste booba. muy sama doom di sama xarit mu jaral ma lool. Mhm. mu jaral ma torop muy Wally Ballago te yéen xam ngeen ni ma demee ak moom. bu dikkee ma bàyyi sama liggéey. waxal benn. benn. bàyyi sama activité bépp bu ma amoon jël sama njaboot foo ne aéroport lay daleek yow. ànd ak yow ba fa ngay dal ma ànd ak sa orchestre buñ bëggee lekk ma jox leen ko. Mhm. suñ bëggee naan ma jox leen ko yore oto teg ko ci lii bi dafa ni dal laay dal bàyyi sama liggéey. Mhm. diñ daan sama man de kon kon ko koo waali daggalu ma bee ma ñëw. Mhm. waaye man maa def sama kanto bu dem fekk ko fa mu ne. ngir jàpp ci. ba mu gën a neex ndax sama doom la. ndax tey bu fi bàyyam nekkoon ni noonu la ci jàpp yàlla na ko yaraxare àjjana te yeexanu kon noonu laa ci jàppe ànd ak sama njaboot dal fu baax bu orchestre ba bëggee lekk ma daw ca mhm. suñ bëggee yére ma génne ko te xam ne mbëgg mu rafet mhm. kon nag kookoo ngi rafetal mhm. bu guddi ma toj ba te peut-être bu may ñibbi sax Wally Seck duma ma du ma ko tàggu wallaay wallaay wallaay lazim waaye nag dafa nekk nit nga xam ne daa jara daa jara defal ndax boo ko defee moom dalay fay ndax bu ma nekkee Sénégal gii bu ma nam mooy dara damay daw ca moom mu yëkkati lu bari xaa alal ju bari jox ma wallahi lazim wa rabbul kaabatil musarafati mhm. waaye du ma fa wax lu bon danga nga fay wax lu rafet lu mën a jëmale yoon waaye nekk magum groupe nekk ca groupe ba di wax li nga xam ne xamoo ko nekkoo ko bu ko ko déggee ci boppam du lu baax kon nañ leen amante jàmm yéenante jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj ndax da koy confirmer ñu bëri dañu koy faral di wax ñi jege artistes yi wala ñi nga xamante ni ñoo sës rëkk ci artistes yi léeg-léeg dina bëri lu artiste di yàqule ñoo ñoo ko yàq da ngay confirmer loolu. xam nga man bu ma nekkee Europe tey mënu maa confirmer dara ndax maa nga fële te ay ay inter ay internet man dama ko dul euh, dama ci dul wax sama bopp wala ma wax ci dara. Mhm. ndax damaa liggéey lii ngeen di liggéey tey. Mhm. xam naa li ci ne. Mhm. tey bëgg buzz man ngaa wax lu ne. dëgg la tu as ndax dala koy jaral ndax vie. mais man loolu man gisuma loolu ndax tey ma toogee ci sama tiktok bii rek li ma nekk ci ami bu ma neexee wax. Mhm. waaye damay ñaan ñi dend ak artistes yi waxuma moom Wally de. Mhm. ba ca Youssou Ndour ba ca euh, ba ca. Papa Diouf ba ca Papa Diouf ba ndax ñoom ñëpp maay seen mag ba ca Sidi ñoom ñëpp maay seen xalifa. Mhm. ñiy dend ak ñoom na ni jàppalante tey wax lu baax ndax loolu du am en mais ku xamul tey boo ko ñëwee wax ko. mën naa boo nekkee ba benn nopp. mën nga koo téye. Mhm. kon ñun ñi dend ak ñi dend ak artistes yi. Mhm. tey wax ak ñoom tey nekk seeni mag na ñuy defaral. Mhm. tey bañ a yàq. tey bañ a yàq. lu bari wax ko yàq lu bari loo gis mu rafet rek wax ju rafet ma ko ñun suñu mag yi yu baax ya ku mel ni El Hadj Ablaye Naar ku mel ni ne El Hadj Mansour ku mel ni euh, diwal yooyu ba ci bi dañ dañuy rafetal. di defar mu baax duñ yàq. même bu koo ko gisee dara lu bon sax. Mhm. dañ koy jéem a maslaa ba defaral ko mu baax. dëgg ndax jàmm ci la ñun fii ñu nekk dañoo nekk dëkk jullit kon ñun dañ koo war a defar méta personne bépp di ay jullit waaye tey jii boo demee ci christian dem ca tubaab ya gis ne ñoom ak africains yi sénégalais yi fii ñu nekkoon a ah, day xaw a day euh, day mel ne day mel ne ñee ñooy jullit ñun ñooy ay catholique. ndax ñee duñ dugg seen yoon nekk duñ wax ci wax jàmbur duñ def ci yëfu jàmbur ñun ñëw fii nga dégg ñuy wax ci wax jàmbur di def ci te te nga ne jullit nga di dem màkka di dem wallahi lazim yàlla sa màkka goog sa yëpp beewu nga teg ko ci suuf mm-hmm. ndax yàlla mën nga koo tooñ mu baal la mën ngaa tooñ waaye nit mënoo koo tooñ bu la baalul mënu laa baal mm-hmm. nag nan rafetal ànd bi mais lan nga jàpp li nga xamante ni tey mooy Youssou Ndour wax na ko àdduna yëpp dégg ko Sénégal yëpp dégg ko ki nga wax ni sa xarit la sa nawle du si jeng toog ak ki nga xamante ni mooy di sa doom waale mu laaj ko mu ne ko waxul loolu lan nga jàpp moo tax mu waxee noonu. waaw déggoo moo tax da ngay yedd ndax yow ki nga xam ne tey jii bi affaire bi amee da nga kaa yónnee message sax wan ko ko. Hmm. ndax boobu am peut-être sama téléphone jéguma ndax man xam naa sama xol. Hmm. lii boo ko defee bu ëllëgee si biir danañ xam ni ñuy doxalee. ndax man Italie Europe gu ma nekk xam nañ ci man ci dëgg. Mm-hmm. xamuñu ci man ci caaxaan. xam ci man ci liggéey te loolu laay diggal ña fa ne liggéey leen. Mm-hmm. man damay liggéey comme yéen man noonu laa nekk mais bu rafetaloon mën na am tey jii waali bu ma doon jàpp cent man naa jàpp deux cent ndax danaan sama dëpp ah sama baay bi kon mi ngi ciy jàpp. Mm-hmm. waaye moo tax ma teg ko nii ne ko bu bu tëj ñëwee su ma ñibbee turino nit ñi sax dañ may xas lu tax mu bàyyi liggéey ba dem topp waal yi te bu ñëwee maay dawal sama oto maay ànd ak ñoom lu bëgg ma def ko jëli sama doom ànd ak moom bu guddi jotee ma toj ko est yow la ma defal waali est-ce yow defal nga ko. iska yow mën ngaa def li ma def ay mën a fecc ku nuy fay leen mooy fecc kat man du ma fecc kat. damay mm-hmm. divertiru mm-hmm. ñi fi nekk di fecc ñu ngi leen di fay di. Mm-hmm. mais man kenn fayu ma di damay defar rek te yàlla tax. tey li ma man mën naa ko. waaye tey ku am cinquante ans di écarté fii amul. wala am na fi. amul mën ngaa gis li may fecc fii gis nga am ko am sama état di ko fecc. te du sama liggéey ca Europe. don la. voilà. kon ñaan jàmm. Mhm. ñaan salaam tey wax lu rafet. Mhm. ñi jege artistes yi ñuy wax lu rafet. Mhm. di jàpp lante. di boole lante bañ a xiiroo ŋaayo boo koy dégg rek ñu nekk ca wet la mais ñu mag ña. tey boo gisee ñooñu ku ñu gisante. même bu nekkul ay xarit. dana nuyoo ci jàmm. nekkante ci jàmm. macha allah euh, nañ gisante ci jàmm nekkante ci jàmm muy kàddu yu am solo xam naa dul woon ñàkk ma dooree ak moom waxtaan bi waaye nag na nga xam ni papa Youssou sunduur nag mu ngi lay xaar ndax la mu la waxoon ba tey mi ngi ci ndax da nga war a ñëw nag dakaaru ne dort pas nee na kenn mënu koo yor ku dul yow ci communication bi parce que gis nañ liggéey bi nga xamante ne def nga fa ci communication italien ak italien ci bës bi nga xamante ne mooy bésu Youssou Madjiguène Ndour mu am nu mu ko def lal xol bi. non ndax booba espèce après koy teg image bi nit ñi seetaan ko. Mhm. ndax tey jii Dakar na door tey ñu nekk itali ñu nekk Italie xale ya. Mhm. sama doom yi déggunu olof. Mhm. italien la ñuy làkk. waaw olof. italien la ñuy làkk. kon tey ji su ma ko defalee ca itali na door indi ko fii. nin sénégalais wax ma wax ak ñoom italien. Mhm. wax ak ñoom ci làkk bi bi ma nàmp. Mhm. kon dana maanaam communale peut-être foofu la ko gisee. Mhm. waaye man tey ji ku nekk 1990. ca itali ba 2024 tubaab bi mënu laa fay. ngay liggéeyal sa bopp. kon yaa ngi nekk ci jàmm kon yow nam moo ku la fay ku la woo. man tey bu ma cëpp ca itali ci kàttanu yàlla tey suba tey. bu suba ma xëy sama place ubbi. macha allah yàlla defal ma loolu ak yonent bi sama liggéeyu ndey ak sama barke baay. Mhm. di ci ñaan jàmm di ci ñaan tam na ma nekkal ci troupe amul ku fa naan xiiroo ngaay fàllu sekk reetaan xam ak kaf ak ree. macha seen mag maay seen père. Mhm. su ma ñëwee këj bañ a wàññi bi du rafet il faut nga ñëw déggeek nit ñi seen i di dañ. Mhm. man loolu laa nekkee ci Europe. macha allah te bu ma nekkee ci dëkk bii. ku ma ci gisi defar laay def. mais du ma yàq. wallaay dëgg la. wallaay dëgg la. Mm-hmm. damaa nekkaloon nag ak nongoloo. Mm-hmm. fii ci dëkk bi. daanaka li dernier li fi nekk ci dernier li ngeen di dégg ci nongoloo lépp man moom ak man ak moom ak yàlla ak xaadim Thiam ak Samba Kend. Mm-hmm. ak ñang Njàmbe ak Sele Mbay. ñoo nekkoon ca nongoloo. ñoom jiili. ñooñu. beneen action la mais kii danoo nekkoon ñi nga xam ne fréquentation la ñooy bokk lekk ñooy bokk naan. Mm-hmm. tey da ngay toog sax ci image yi dégg naa ku ne naan nangu te yow nga xam li nga xam ndax yow fekke nga démb te ñoom fekke wuñ ko mm-hmm. te yaa ngi tey te mënu noo wax lu loolu li nga xam ne gisoo ko macha allah kon maa ngi ñaan jàmm amin di ñaan salaam amin di ñaanal ñëpp jàmm amin yal yàlla def jàmm waaye bu ñu génnee ci point boobu ko wax Fallou Seck Torino di nga wax ki nga xamante ni moo di suñu papa Thione Ballago Seck wax ki ki nga xamante ni moo di Adja Kine Diouf Diaga parce que mën naa ni naam ñi nga fi lim ñëpp xam nañ leen waaye sénégalais buñ la ràññeewee Thione moo tax ñu gën la ràññee seen relation ba tax sa dellu ci Sénégal bés bi nga yëgee ne suñu maman Kine Diouf génn na àdduna ci nga bàyyi lépp ñëw fi nga xamante ni moo di senegal ngir bokk ak njaboot gi li nga xamante ni moo di nakkar gi sa digganteeg euh, famille Thione Balla wa inna ilaahi wa inna ilayhi rajo na ba pare ne mhm. na leen yàlla xare àjjana te yeexe na amiin ñu jógee yàlla na jëm yàlla na leen gënal fii ñu jóge woon ci barkam yaa rasulullah amiin yaa rabbil alamin amiin dafa nekkoon sama mag ji nga xam ne hmm. ba ci Mapenda ba ci Ousmane ba ci Assane hmm. Ndiaye hmm. ba ci keebaa tey tey ñëw fu nekk ci Europe fu ma nekk ci Europe bu ne cëpp mhm. ci man la ñuy ñëw macha coon sekk bu daan naar cëpp man maa yore oto bi mhm. ak soxna jaaga yàlla na leen xadaa àddina maay dawal léeg-léeg wàll nekk ci ginnaaw léeg-léeg du ca nekk mhm. man maay dawal maay jox lekk maay jox naan ba ni nii ñibbi kon kooku nekk nga famille mu jàpp ma moom rek daana wax pecc de xaw ma ku ko daan pecc fii waaye li ngay pecc gisuma ku ko fii pecc. moom sama mag di sama xarit ba. Mhm. mas naa ñëw Bérésia ñi may wax ñoom ñëpp a ngi may dégg orchestre baa ngi fi kenn demul. Mhm. ñi may wax ña ngay dégg. ñu tëgg spectacle ba ma ñëw toj spectacle ba Bérésia ñëpp yuuxu mu yem ban eggee hôtel ba xam nga lu mu wax. bu mhm. kenn dugg néeg fa fàllu sekk. ñu ne ko lu tax mu ne nan laa ko fayalul visa fayalu ma ko dara mu bàyyi liggéeyam ñëw topp ma ñëw fii di toj spectacle bi yéen fu ngeen rek. ba léegi kon du ma bëgg bis duma bëgg pecc kat. Mhm. ñoom ñëpp ku dugg ci néegam dootoo ma topp. loolu day moo xam daa dëggu. ndeysaan di sama mag. Mhm. di sama xarit. Mhm. di sama kóllëre. ma koy ñaanal yàlla xare ko àjjana. xam ne lépp lu mu def fii rek. ak lu mu fi woy. ak lu mu fi def rek. ak njàngat la. lu baax rek. tey bi mu demee. xam nañ valeur am wallaay dëgg la. muy kàddu yu am solo ba tey ci jotaay bi waaye tamit mooy suñu yaay Adja Kiné Diouf Diaga euh, ginnaaw bi mu dëddoo léegi ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana. tiis googu teguwaat ci kaw njaboot ki ginnaaw bu tamit soxna moom mi demee euh, sa yërmande si njaboot gi nekk nga leen xoole dama ne yonent bi gisul baayam ba tey yaayam di yàggul lool. te mooy mhm. sunu lor yi royukaay. Mhm. lu ñëw da ngay xam ne yàllaa ndax yàllaa na ko indi woon ba mu defal nu lii. Mhm. kon nag bu demee dangay xam ne yàlla la. wallaay dëgg la mhm. yàlla nag bu bëggee ku bëggoon ñàkk nga. Mhm. kon nag yàlla mi soxla. moo leen woo. moo leen euh, yal na leen defal cek. àjjana yu gën a kawe. man loolu laay ñaan yàlla. ndax ku baax la woon. sama mag ju baax a baax la woon. Mhm. Mhm. Mhm. fu ma gisee. bi mujjee gisee. muy jour àjjuma. ma dem fa lim ma wax mi ngi ci internet bi. ni nga jàppoon ba mel nii. bu ko bàyyi te jig na la. fu nu waxee fàllu ñu ne ma nga ca waar wa. liggéey daan doole dimbali njaboot gi. dimbali booy ya fa nekk kon nag yow yow kenn amul sa fay kon nag damay ñaan rek yàlla xaare ko àjjana te yeexanu soxna ki nekk Mm-hmm. di jigéen ju baax te yéen ñëpp ngeen xam ci dara. Mm-hmm. donte gisante wu du ma gisanteeg moom ndax bu ma ñëwee vacances rek ma gis lu ma naqari. Mm-hmm. ma dem ci moom wax ko. ñu waxtaanee ko. man noonu laa daan def boo gisee sax tey ma wax nii sax. ba xaw a jëble daaw ma waxee nii dama daan dem ca coon sekk mu toog. ma ne ko nangam ak nangam mu ne ma di na nag xaaral ma woowaali wala ma dem sa cox na ne wax ko sama pour ne ko lii la léegi lii nag mu ne ma xaaral ma woowaali tey nag bu ma ko amul. Mhm. te man ak sama doom ji ma bëgg ko lool sopp ko bëgguma mu am kenn ku nu ko yàqal. Mhm. ndax li may def ci moom mënuma fay. Mhm. waaw. kon dama koy ñaanal jàmm. di ko jaral salaam. teraanga ji ma am nag. Mhm. mi ma ciy sédd bu baax a baax a baax. Mhm. su ma ñëwee vacances fu ma dégg ne ma nga amee spectacle. Mhm. su ma doon rey sa mbopp du xaar ko ma jox essence du ma maay demal sam bopp. toj ko dëgg la mu xëyee gisee baax na. waaye bëgg naa koo defaral ba mu baax. macha allah ndax bëgg ma dara am yàqu. te tey lay rawee. te tey lay rawee ñuy ñaanaat bu baax rek waa juróom yooyu yàlla yërëm leen te xaare leen àjjana ginnaaw euh, dëddu ki nga xamante ne ma maman Kiné Diouf Diaga Papa Fallou dafa bëri polémique boo xamante ne dafay dal ci kaw ki nga xamante ni mooy di sa doom jooju balaa ko sekk yàggul dara gis nañ Omaro génn def sorti ne Wally dina jàkkaarlook askan wi le 12 waaye li muy yëg ci moom neexul ndax am na yaakaar ne Wally sekk day bàyyi way waajuram dëddu Wally ne day bàyyi way dégg nañ ko si ñu ko jege sa gis-gis ak. Wally commencé gul way xam nga man maay man man du ma waxantu. Wally commencé gul sax way dana woy ba génn bat wakaal ndax yow tey jii boo yoree ay contrat jàmbur. Hmm. signé contrat. te at mii lim fi amoon contrat kenn amu ko ci artiste bu nekk jóge Sénégal. da nga woy ndax doo jël ku ne nga fay ko la sa xaalis. Hmm. waxu Sénégal nag moom dafa neex man maay wax a yéen man mi nga xam ne man mentalité bi ma yore. Hmm. xëy na yorewu leen ko. te ma xam la ne ci Europe tey européen bi xamul baay bu dee. xamul yaay bu dee ndax daa jël alalam jox la mhm. ne la da may tëggal waaw boo signé pour retour xaalis ba amatul comme feeg yaa ngi dund yow joué rek da ko joué kon nag waaye dama ko ñaanal baatam wér te xam ne am na tournée tournée day woy mhm. billaay wallaay hmm? waa la ko wax kon ñi jàpp ne waali mooy yéen bàyyiwul commencé gul woy ku commencé gul woy kay man maa ko wax man mii man Fallou Seck commencé gul woy dana woy dana bëggal nit ñi maa koy ñaanal ñëpp danañ kontaan démb dama dugg almadi ma toog ak maam Diarra ma daan jaay café ma ne ko waa naka almadi mu ne ma ngi nii rek sa doom ji gëj fi kon nag am na ñu bari ñi nga xam ne tey jii ñu nga ca dëkk ba. daanaka bu mu mu màggoo ak ñooñu mu daan woow bu ñu fa daan toog rek am na yu bari du daan dox tu as compris. te loolu yëpp ambiance bi moo ko waral ambiance bi ñëpp ñëw. tey kuy tëgg fii kii tëgg fii ñëpp ñëwandoo. mu neex. ñay jaay jaay ñay liggéey liggéey ah parking ya lekk am na ñi nga xam ne ña fa la yooyu yëpp yooyu yëpp ci ci defar réew la. Mm-hmm. waaw ci ñu ngi liggéey. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngi liggéey voilà ñu koy ñaanal bu baax. yàlla koy ñaanal rek. mu am kàttan ak man-man ba ba retourné waat ci piste bi yàlla na ko yàlla defal. amiin ndax man man la may liggéey maa ngi koy liggéey. tey bu ma toogee ba ñaari fan wala ñeenti fan damay dem na ko waale man maa ma ne ko maa ngi liggéey. boo fa jëwee li ma man bu dëggee Espagne. Hmm. damay taal sama oto. Hmm. taal sama oto Espagne. Hmm. ànd ak Tafa Burkina ne ko boo demee. bëgguma bëtam ñu ne suuf a ngi ci muy ab ku ma am kàttan nekk ca di liggéey ci loolu ma ne ko tànk ak tànk fekk tëddul bu ko baax. man loolu laay nekkee moom bu ma demee ci dëkk dawal sama oto Espagne. nga jóge Italie dawal ba Espagne da ngay passé France. Mhm. est kooku mën na laa. ah. Mhm. nga jóge fa mu ne ñu ne la France nga bàyyi sa liggéey tëj sa sa njaboot tëj ñëpp ñëw fekk si ko fa mu ne bu dee naqar nga ànd ak moom. Mhm. bu dee bànneex nga ànd ak moom kooku bañoo ko. su ma ko bañoon lu ma ko def ndax am naa beneen lu ma war a def mais bëgg ko bëgg fu mu ne gees gis baayam. xaritam. Mm-hmm. nag lan ngay tontu ci li nga xamante ne ñu bëri dañu koy wax léeg-léeg liy faral di yàqal waali wala yenn yi nga xamante ne ñu ngi koy dégg ci turam euh, entourage bi la wala ñi ko jege ñoo desee suñu artiste wala bu waxuma la waali rek nañuy bokk di ko di wax lu baax di def lu baax boo ko defee ñëpp nekk ci jàmm mm-hmm. ndax kooku la ngeen koy wax moom lay dégg ndax yéen lay farakante dëgg la mais boo ko waxee lu bon safaan ba moom lay gis tey boo ne ko Fallou Seck kat ma ngay wax dara na ma Samba ak ma dem moom lay gis yow kon yaa ngi jaxase. Hmm. jaxase baaxul yàlla bëggul loolu loo jaamu yàlla bëggul. Hmm. ndax tey jii bu ma togg woon mu am lu ñu laaj foofu ma wax ko ba ne gees ñu seedeel ko nit mu wax kon da bu boobaa dama naan ko lu Sénégal jàmm noonu amul loolu mais tey maa teg sama bët te ki ma ko def muy sama nawle te war ma ko hmm. nekk ak artistes yi nañu wax lu baax. di wax. jëmale réew mi kaw ci kanam ju mm-hmm. baax mm-hmm. di bokk ndey mm-hmm. bokk baay al mu'min lil mu'min kalbun yaani yasuddu baalu baalan alxuraan loolu la yàlla wax wallaahi yàlla yàlla wax macha allah papa mi kàddu yu am solo ba mu ca tegee ne xayrukum ki gën seen man taallama alxuraan ki xam alxuraan wa mu di ko xamle mm. ba mu ko ca tegee mu ne yow mi nga xam ne yaa ngi wax lu baax danaa la fay ngeen gi fay kon nan waxante lu baax. la. nit dana hmm. jaamu yàlla di jëf di wax lu ne. Hmm. génn rek wax leen ne li nga safaan ba nga xam ne yow yi wóoru la xamoo ko. Hmm. yàlla bind la ca bàkkaar yi nga xam mënu koo far. dëgg la de kon nag nan jàppalante. bokk ndey. bokk bàyyi ñu nekk fii nekk ci jàmm. ñu ñaan lépp ñu teg ko ci yoon. muy musique bi. Mhm. muy lépp rek. ci yoon rek bu ko defee rek. waaw àdduna jàmm man bu ma koy wax it. Mhm. ma ko ngir fii dama koy wax ngir maa ngi kilifa laa te maa ngi mhm. dem. man nag may ñaan jàmm. di ñaan salaam. ña ma nekkal xam nan ma. fii ma nekk xam nan ma. kon damay ñaan jàmm. ñaan salaam. ndax man bëggee rek. waaw waaye lii mu ñuy wax tey message yëpp génn na. nga ne tuumaal. setal sa der sa der la. waaw du ragal du ragal. waaye nan ko teg. teggi tuuma la waaw kay teggi tuuma la ñu xool ko ba moom ma waxoon weddi ko weddil ko boppam mm-hmm. sama doom ya fa nekkoon nekk seen fierté ñeneen ñi nga xam ne gis ko ndax te ji ma toppoon sama sama xol rek dana dem mën naa koo gis sax mais damay ñaan jàmm di ñaan salaam mm-hmm. mën naa koo gis mu demee ne leen ndax keroog topp naa sama xol ba nga xam ne xaar naa sax ndax xam naa may kan mm-hmm. waaye day a ah, fa ma nekk ci dëkk ba tubaab ya jox nañ ma respect. ma hmm. jox leen hmm. nit ku ñuulee jox nañ ma respect. Hmm. ma jox leen respect. macha allah respect et reste pro. maa ngi ñaan jàmm. amiin ñaan salaam man lii laay wax. lii rek ngay wax waaw lii wax. macha allah mais nag lu jot daal di yomb. lu mujj day daal di neex. nañ leen ànd bokk ndey bokk bàyyi. wallaay dëgg la. musique daw. musique daw ma nuyu suma xarit bu baax boobu nga xamante ne moo luy euh, Moustapha. Moustapha dama ne dama koy jël. moom suma maa ngi koy jaar bu baax ndax. Euh, bu bu dee Bergamo dama naan ko Moustapha tey la Waly sekk di ñëw tey jii la Waly Seck di ñëw. Mhm. Waly bu ñëwee bu nee cëpp aéroport bëggatuma dara lu ko xusi damaa bëgg nga dar ko te da koy dar ba ni muy jugewaat ba duggaat aéroport te bu ñëwee dana noo gisee ma ak sama xol sedd na. day jékku sax mu ne wàlli lii may def yëpp de Fallou Seck ma koy def loo wallaahi lazim di ko wax wàlli kon kooku mi ngi defar mhm. buñ bëggee lekk mu joxe waaw dawal oto dafaa jëmbu dafa yombul ca Italie de mhm. damay jël sama oto teg indi sama njaboot nekk ak yow ci bi ñu nekk ci jàmm nekk salaam macha allah est-ce que xam nga lu ma def ba fay mhm. yow ñu nga indi da leen a fay te pourtant guddi ba la ñuy def rek laay def bu lii may karte mu lay cegin defar ba mu baax. waaw ndax guddi ga rafet. waaw man lii laa xam. loolu nga xam mi lu am solo xam naa laataa ñuy tàggoo rek papa ñu nuyu suñu xarit boo xamante ne nag yaakaar naa ne sa waay la muy Serigne Mor Thiam borom Mbacke ah. Bawol multi service. dëgg maa ngi koy nuyu di ko kooku dama koy ñaanal jàmm. waaw di ko ñaanal salaam. Mhm. ndax moom dafa nekk nit ku bëgg a daan door moom daal liggéey rek la xam. ba yaatu. man fu ma jëmee Ouest Foire. Mm. maa ngi dem ci sëñ Mor Pam. wallaay dëgg la nuyu ko. Mm-hmm. ziar ko léeg-léeg sax ma tooñ na ko jox ma foofu dara. Mm-hmm. yëkkati jox ma loolu yëpp ci ay lii la. dem ca njëkk na ko mais Dakar yooyu yooyu mooy àdduna. Mm-hmm. bëggee. waaw ba ñëw yàqalante. ku nekk jëm ca kaw ca kanam ndax defe nga ne yàqalante da lay jëmale ca kaw da yàqal. ndax tey jii loo wax nit ñaa ngi fi image yaa ngi fi. wallaay dëgg la ndax tey ba ma ko yóbbante ne ko lii de wax nan ma ko lii de fi laa nekkoon Mori Thioune moom mooy goro moom mooy goro kii may wax tey te tey jii moo ma ko waxtaan mu ngi nii tey maa moom fu mu jëm man lay fekk si. Mhm. ndax may rakkam. dëgg la. ba ci ay rakkam ak ñeneen ak ñeneen. kon nañuy rafetal. kon nañ rafetal. macha allah di ñaan jàmm di ñaan salaam. amiin ndax yéen nii. Mhm. tey jii jege nit ki muy professeur. Mhm. wala muy patron. wala dara nga ngay yàq rek. di ko wax li nga xam ne ku gis bëgg laa rey baaxul. dëgg la nañ bàyyante loolu. nañ bàyyante waaw. tam kontaan naa kàddu yi am na solo waxtaan bi euh, ni ñu koy waxee rek saa su ne bu ñu toogee ak ku mel ni yow njëriñ lay doon ci askan bi nga xamante ne saa sune rek ñoo ñuy bàyyi xel ñu ciy bu baax baax a baax ci jotaay bi xam naa du ñu toogaat du yàgg dañuy profitoo rek bàyyi la nga joxe dernière kàddu yi gërëm sant ñi xamante ne saa su rek ñu ngi ànd ak yow ci lépp lu baax. man moom bu may sant tey damay sant ñëpp. Mm-hmm. di gërëm ñëpp ba ci yow. jërëjëf ñëpp. ndeysaan di ñaanal ñëpp jàmm. Mm-hmm. ndax man tey su ma ñëwee fii à dara. Mhm. li may njëkk ñaan ku ma xam ca Italie. Mhm. xam ne damay may ja am-am. Mhm. man-man ay milliards xëpp suñ kaw. ku amul kayit yal na la yàlla may kayit. maa ngi nuyu ñëpp bépp diaspora. yàlla may leen xéewal ndax fii leen am. ndax tey jii ñu nekk ca itali di dégg am na lu xew fii ci dëkk bi kon dañuy ñaan jàmm ci dëkk bi ndax kooku mënta ñëw. wallaay dëgg la te bàyyi fi kër yu ak ay oto. ak njaboot. mun leen a toog leen di. kon dañuy ñaan jàmm. te boo gënee gis dëkk bi gën a riche si àdduna. Hmm. jàmm la am. dëgg la ci la lépp xaj. te beneen affaire yàlla li mu woote mooy jàmm. Hmm. ci la lépp xaj ngeen ñaanante jàmm. Hmm. ñaanante xol yi nekk benn. di ñaanal waa diaspora bi. di di di gërëm sama ndey sama baay. di wax sama soxna maa ngi koy ziar bu baax a baax soxna Maguette ñan soxna Maguette. waaw soxna Maguette Niang. maa ngi koy ziar bu baax bu baax a baax a baax. mooy yaayu xale yi. Ah, di bàyyu di. di may ba may bàyyi xale yi. waaw moo uuf ñëpp daal moo uuf ñëpp. kon nag damay ñaan jàmm rek di ñaan salaam. di jaru sax maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax. Mm-hmm. sama aaw buuru këram. Mm-hmm. ndax tey ma tegoon stress. Mm. du ma mën a toog fii di waxtaan la vraiment tegu may te yéen yéen ne sax defe ngeen ne maa ngi yéen a dëkk. dëgg la ñàkk a teg mm-hmm. di ko ñaanal mu gën a uuf njaboot gi. di ko ñaanal fan wu gudd. ak wér màggat ñang. Ah, rakk ci papa Cheikh ñang. bàyyi ba ñu koy woowee caam ñang yaay ja ñu koy woowee Terry Mbaye di borom Louga. ndeysaan si jëkkëram ñu di borom Trino borom Jonowaa di ñaan jàmm di ñaan salaam. di ñaanal ñëpp jàmm di wax asalaamaaleykum. wa rahmatullah di siyaar seen site bi di leen wax ca kaw. Mhm. ca kanam mhm. ci lu baax. caaw caaw mbokk yi muy kaddu am solo ci lu nga xamante ne saa su rek dañu koy faral di wax dalal daanaan yu mel ni moom waaye di nuyuwaat bu baax suñu soxna soosu rek wala suñu yaay jooju nga xamante ni moo di màgget ñan li mu wax ci moom dañu koy dëggal ndax ba ñu ñëwee dalal nañu teraanga yaatu na macha allah ñu koy ñaanal yal na yàlla yàggal li nga xamante ne moo di seen ànd ba njaboot gi fekkee lépp di kontaan ci jàkkaarloo bi mbokk yi di leen jox di daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf